asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbokk jullit yi di ñaan suñu borom subhaanahu wa tabaraka suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ginnaaw suñu nuyoo nag mu mel ni suñu jotaay yóbbulu ndaw ñi nga xam ne baaxoo nañ koo def jataay yi weesu jàngale woon nañ lii tojum jàpp ak liy waral sangu farata kon suñ jotaay yëpp tey mel ni dañuy tàmbalee ci ni ñuy sangoo farata bismillah kon nii lañuy sangoo farata am na ñu naan sangu set am na ñu naan sangu janaba waaye yëpp benn rek la da wut ndox mu laab ndox mu laab nag waxoon naa la ni muy mel ca tàmbali la boo wutee ndox mu laab toog fi barab bu laab wala nga taxaw nekk barab bu suturlawu jublu penku wax bismillah bu dee barab boobee mënees na fa tudd yàlla raxas sa loxob ndeyjoor ak sa loxob càmmoñ la tàmbalee ca cati loxo ya ba ci tikki jara yi bu ñëwee tikki jara nag mooy fi jigéen di takk ay jara wala lam bu dee góor nag mooy fi muy takk montur nga raxas li tàmbalee ca cati baaraam yi foofa ba mu set moom ngay njëkke lu njëkk nga koy dugal ci ndox mi ngay sangoo farata ndax dañuy bañ nga ñëw rek dugal ci say loxo fekk say loxo am sobe te kon bu boobaa ndox moomu day yàqu kon na nga njëkkee raxas sa ñaari loxo ba mu set la ngay njëkkee nag ginnaaw loolee mooy dangay raxas la tàmbalee sa jumboox ba ci say bëti oom li tàmbalee fi jumbax ba ci say bëti oom moom ngay jëkk raxas boo koy raxas nag ba yegg ci sa xawra ca ngay yéene ci sam xel ne fa seeni naa yéene sangu farata walla noo ko man di waxee nga yéene ko ci sam xel boo ko yéenee ci sam xel fekk ngay raxas li tàmbalee sa jumbax ba ci say bëti oom kon boo noppee da ngay ñëw ci njàpp bennam benn buñ ne jàpp benn benn nag mooy lépp loo doon def ci njàpp ñett yoon na ko def benn yoon boo jàppee benn benn ba mu yegg nga ñëw ci sa bopp mel ni ku ko masaa na nga njëkk mel ni ko masaa masaa yi nga tàmbalee ko ci cati karaw ga ca ndong la xëcc ko ba ci fa karaw ga tàmbalee mooy ca jëma te boo koy raxas nga dënkal sa bopp mel ni ku sëgg te jël ndox ma di ci sotti fexe ba ndox ma yegg ci deru bopp ba ba karaw gi yépp deru bopp ba yegg ca ndox mi yegg ci deru bopp ba ba tooy xëpp moo xam ñetti yoon du koy raxas moo xam ñaari yoon moo xam benn yoon waaye na fexe rek ba deru bopp ba yépp tooy bu dee jigéen nag faaw moom it bu dee ku léttu nga xam ne seen karaw dafay baaxu di bari faaw mu fexe ba nal ndox ma ba ndox ma yëg ci deru bopp ba ndax munu cee ñàkk kon boo raxasee sa bopp ba mu tooy ba daj da ngay ñëw dëngal sa wetum ndeyjoor sa noppam ndeyjoor mel ni ku jël ndox ma di ko sotti ja raxas biir ga ak biti ga yëpp nga dëngalaat nopp ba su ko defee dañuy bañ ndox ma dugg ci nopp bi ba ndox mi yëpp dañ nga raxas biir gi ak biti gi wet googu yëpp ngaam ngaam yi ak lépp ba mu set boo ca jógee nga raxas sa noppub càmmooñ moom it comme ni nga def noppub ndeyjoor ba biir gi ak biti gi ba mu set boo ca jógee nga raxas sa doq nga raxas doq li li wër doq li yëpp biir gi ak biti gi yëpp ba mu set boo ca jógee nag nga ñëw ci sa wetu ndeyjoor la tàmbalee ca kaw mbagg ma wàcc ba ci sa loxo fa nga yemoon ci jàppale mooy ci conc li daldi dugg ci biir poqtaan gi wet googu yépp nga raxas ko ba ci say bëti oom nga yem fa ci oom ya nga yem fa raxas wet googu yëpp la tàmbalee ci kaw mbagg ma ba ci bëti oom yi ba mu set muy wetu ndeyjoor gi boo paree nag nga ñëw ci wetu càmmoñ gi moom it def ko ni nga def wetu ndeyjoor gi tàmbalee ca kaw mbagg ma raxas ko ba ci say bëti oom nga yem fa nga dellusiwaat nag ci wetu ndeyjoor gi fa nga yemoon ci raxas ga mooy ca bëti oom ya nga tàmbaliwaat foofu raxas ba ci suuf tànk ya li ñuy wax day joor mooy booy jàpp fi nga yemale jàpp li nga raxas ko ba foofu wala sax nga raxas lu tàmbalee ca bëti oom ya ba ca cati balaam tànkee ba mu set boo ko defee tànkum yoor bi boo paree nga def ko tànkum càmmoñ bi moom it la tàmbalee ci bëti oom ya ba ci cati balaam yi nga raxas ko ba mu set boo ci jógee nag nga raxas sa digg ginnaaw ba mu daj fexe ba digg ginnaaw gi yëpp nga raxas ko boo ca jógee nga raxas sa diir ba mu daj boo ci jógee nga raxas sa dënn moom it ba mu daj su ko sangu farata day daal di mat sëkk kon nii mooy li nga xamee noonu lañuy sangoo farata ma ci dolli nag sangu farata li ci jër a gën a bàyyi xel mooy ñett yii nanga fexe ba sangu farata li na nga yéene ginnaaw bu amee ndox mu laab na nga yéene na nga fexe ba sa yaram wépp tooy na nga fexe it fépp fu tooy na ànd ak bomb na ànd ak bomb kon ñett yooyu mooy ñett yi nga xam ne moo ëpp solo ci sangu gi ginnaaw boo amee ndox mu laab na nga fexe ba na yéene boo yéenee fexe ba sa yaram wépp tooy te fépp na ànd ak kon ñett yooyu fu mu dajee rek ci am sangu farata kon sangu farata loolee mat na kon loolu mooy waral ngay digg xeetu sangu farata yu bari waaye nag defe ko nii mën naa nekk ni gën kon daal di ci ëpp solo mooy na fexe ba yéene fexe ba yaram yépp tooy fexe ba fépp na ànd ak bomb kon noonu mooy sangu farata ak li ci aju kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala matal ñu suñu jaam yàlla yëpp lépp ci matul matul ñu ko te nangul ñu lépp defal ñu dégg ak topp kon mel ni dañuy wàcce suñuy kàddu di wax ne lépp lu fi jub rekk ci suñu borom la lu fi dëng ci suñu jëm yu xeew yii la in uridu illa al islaaha mastataxtu ma tawfiqiya illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal